parce que euh, li ñu war a bàyyi Sénégal élection bi boo xoolee campagne bi durée bi yàggul ñu sax ku nekk teg ne man bu ma ñëwee lii lay def la plupart malheureusement comme ni ngeen wax sànnante xeer la entre ay en coalition Diomaye benn Bokk Yaakaar et même coalition xalifa président. Mhm. parce que ñoom mhm. ak pas Pastef on sait aussi les problème qu'il mm -hmm. qu'il y a entre ñoom. donc tamit. voilà mm. donc, cest dire que. ñoo fi nekk di di sànnante xeer rek yooyu et nit ñi presse bi malheureusement aussi daf lay loolu mooy mooy def sensation loolu mooy def sensation maintenant ce qu'il y a c'est que dañu war a jublu ci sénégalais te ñun loolu la ñu gëm cest dire li ñu suñu problème mooy naka la ñuy def ba régler jàppale problème Sénégal Sénégal il a deux aspects il comme il a dit on a une population extrêmement jeune dernier recensement bi wane na ko ensuite cette jeunesse là elle est désœuvrée xamul fu mu jëm amul repère looloo indi tey gaal yi nit ñaa ngi ci di dem ñii ngi aw Nicaragua yu kenn xamul mais la problème aussi il y problème de l'éducation li mu tudd na ko léegi mais formation c'est la base de tout parce que tey boo nee damay régler ay emploi te yow régler woo formation bi mais le problème reste entier il faut que ñu revoir les systèmes d'apprentissage et de formation pour nga xam xale yooyu naka lañ leen si ban euh, domaine lañ leen war a former et loolu da nga koy réorienter parce que le problème tout se passe à Dakar boo amul boo euh, Dakar est, est saturé benn liggéey fi am mooy wut moto di def càq-càq à la limite pour les jeunes en dehors de loolu beneen liggéey amu fi donc pour nga mën a def loolu ñun lu ñu proposé mooy des pôles régionaux de développement quand sa dit ça pas dire dem créer benn usine si àll ba rek dellu si bàyyi ko foofu mais lépp lu wër yenn zones yi ñu mën ko fa def tey par exemple tout ce qui est sidérurgie fer tout ça là on est on est on est là-bas dans le Sénégal oriental pourquoi pas ne pas le mettre là ba de créer un pôle de développement boo xam ne si si domaine boobu lay activé wu et quand tu dis ça tu vas installer à côté des usines des usines des hôpitaux des usines des écoles etc et des centres de formation dans ces métiers qui sont dédiés à cela ñu xam ne zone boobu ku fa dem loolu ngay jàng loolu ngay dox et lépp commodité yu am Dakar yëpp mën a nekk dans la zone day développer walla en même temps l'ensemble des régions du Sénégal en fait c'est autour de ça ñun la liggéey mais euh, euh, tey boo bàyyee pêcheurs yi par exemple tey les licences de pêche moo leen indi euh, tooxi duna yi ñu am aujourd'hui mais loolu pour lan moo ko war a dindi les pêcheurs mënatoo napp jën looy def nga am na possibilité nit ñi fay la yóbbu leen Espagne ñoo mën a dawal gaal de goo ma ne yeneen jeunes yi mënuñoo dawal gaal donc pêcheurs yaa ñoo koy dawal yóbbu leen parce que amatuñu liggéey donc ce sont des choses comme ça qui sont dans les programmes qu'on devait ñu toog débattre ci waxtaan ci Sénégal mi ngi jëm ci pétrole mi ngi jëm ci gaz te yu bëri mënuñu ko def ñun kese il faut pas aussi rêver le Sénégal c'est un petit pays dans l'Afrique de l'Ouest en, en superficie je veux dire mais dans la CEDEAO quand même on est euh, la en terme en de pré dans de lui moi voilà en terme de produit intérieur donc loolu yëpp c'est important